mu ngi lay fay. am contentement bu mag a mag a mag ci ci jotaay bi. Ndiob Mbaye maa ngi lay maa ngi lay gërëm. waaw loolu sama xarit la ak sama mag. te it bis bi yàlla la mën a ko toog. nga xam ne ñu ngi sa waay tey ak ci kër. te calendrier bi chargé na. mais yow moom sama xarit la. sama mag la ñu ngi nii tamit doog a ñu fi nekk. te bu ñu ñëwee wax dëgg yàlla. tey nag li ma waxoon bi ma fi ñëwee jàll si rek laay waxee. fii ma toog nii sama kër. nekk na nit boo xam ne ñëpp xam nañ cofeel ma am man ci moom. dëgg la moom it mu am ko ci ko comme li nga wax rek. mosoo gis kàddu bu jóge ci moom ñëw ci man. dama ñàkk. te man it àdduna kàddu bu jógee ci man dem ci moom. Mm. mu nekk kàddu bu teggi ni dama ko def yare wu moom sax. ñu jëm nag bis boo xam ni man dama naan sama bis. damay hommage sama ay mag ak sama ay kilifa. parce que ku la jiitu nag ci nekk moo la gën a xam fi mu bis bi mu taxawee. balaa loolu dana am lu ndaw lu ma confirmé ci lamp li mooy wax yu rafet. yi nga xam ne mataan bi ci ba tey da koy wax. ci deruwaay bi. le 27 bii passé moo ci te loolu kenn yëg wax nañ ko jot. le 27 bii passé moo ci mucc ma nekk voyage woo ma ay 9 heures du matin dama fi foo nekk ma ne ko maa ngi nii di seetaan ay série. dama le 27 bi dama bëggoon ñu dem ci waat ma jël 500. 500 ñu àndal si rajo bi. Mm. barki Serigne Sall. Mm. bis bi ñu ne bëri na def sama papa bi suñu tàllal ko sama loxo bu ñaanal jóge fa dem yéen je pense que moo moo ma ñoo àndal ak branche euh, jóge fa dem yéen ci Baba Mar tàllal ko sama loxo bu ñaanal ñu jóge foofu ñu waajal benn kër Viviane bu am defe ñu jóge sa téléphone ko waxaatee nii gën na maa nekk ma tàllal sama loxo mu ñaanal foofu ma jëm Pape mu ngi jiitu waaye muy toog te dama wax Pape wax bi am solo la koy waxaat tey waaye jour boobu même bu ci amee incha parce que ëllëg day am beneen génération boo xam ne dañuy ñëw tey ñaan maa yàlla dund ba toog man tamit génération boobu yëpp di jëm di ma dañuy dem fu raw biir fi te bëgg nañu nga ñaan boobaa bu ma xalaatee ndaje yi parce que nag lii xew si ba xam ne wàcc ak escalier yi sax suñu borom la neex. te fii nag da ngaa loolu solo bi ñuy doog a fii lamb wax na ko fii képp koo xam ne da ngaa baax bëgg lu baax nekk ci dara ci liggéey da ngay xool ñi ci baax nga teg leen bët man dama wuute loo xam ne fekkee naa muy ñëw fekk la muy ñëw ci lamb ma nekk première Dieynaba ngi Tivaouane ñu jom fulla détermination ma jël nag sama bët teg ko ci sama ay mag yoo xam ne dañoo fulla ci li ñu def dañoo fayda ci li ñu def ndax li mu def ci musique ñu def na quarante ans ba cinquante ans ci musique def ko ci def ko ci moom mu ñëw ci diggante dix ans mu def ko fi mu jaar ak man rek def dirti def génie def docteur man donc yow bu dee nit nga jeune bu ambitieux war ngaa mën a ah bon sama ma ci fii aw yoon bi gis nga ñuy def na ci yoon. créé ay nit bi caaxaan ñu répétition lañ ko teg way bu neex def album bu neex yëpp doomu aadama yi tey seen i xarit. man ci yoon bi laa jaar. après yoon boobu nag ñi nekk ci ginnaaw bi critiqué ñuy wax yow lii ci yow lii. loolu ñoom la concerné waaw loolu ñoom la concerné parce que peut-être sama gis-gis ak seen gis-gis bopp. man dama nekk ci dëkk bi ma ne wéykat laa wala suba ma ne dama opté football. dinaa ko teg Sadio Mané mu xam ne kii ma ko teg. parce que dama bëgg a mel ne Sadio Mané wala ma doon. Hmm. te donc bu dee nag yàlla ci musique la ma teg bu ma fi ñëwee ma jël sama ko ci teg ko ci sama ma wax la ko. Hmm. da ngaa defar hmm. neex ma lool. sa ay xarit fu ñu dajee ñu laaj dañu. njóobu bu ñuy kaf da nga xanaa kii ñoo bokk ndaay ak baay. macha allah incha allah. sa bisu sa bisu xarit la loolu ma wax noonu loolu lañ ko naroon a defee le 27. incha allah la naroon a bett si bett si bu am toog. parce que suñu borom dogal loolu. man gis naa ni am nga ci bis am nga ci contrat war ci joué. loolu contrat la. dama la waxuma la contrat même bu amuloon contrat toog nga pousse ma dama demal. nga dóor ko daanu baax nga ñëwaat. macha allah loolu nag neex na. loolu képp neex na. macha allah. maa ngi lay ñaanal gudd fan. amiin yaa rabbi amiin. allahumma amiin. maa ngi lay ñaanal yéen ñi nga xam ne yéen yéen ko. yàlla ko tooy. amiin yaa rabbi amiin. man ku la fonk la. ku la respecté la. ku la jox cër la. bàyyi ci borom cër la. ku fonk say xarit la. ba ko mii bu ma dawal oto ba ñu daje ñu ngi fi. damay damay wàcc nga xam ne dañu ne ci ginnaaw di wax wala wala di critiquer dañoo am jot boobu. dañoo am jot boobu. jot yi nag ñoo bokk. ñun jot boobu la ñu am mais sama jot mooy dama liggéey ba am fu ñu ma ne nag ma am jom. lay gërëm bu baax a baax ndaxte bi événement bi amee ba yaa ngi ci sonn lool bëri ay affaire yoo waroon def sa réew mais nga ne ma rek foog ma toog ba gunge la ba lii passé le 18 ñun ñëpp dinañ ñëw doole la incha allah. ci sa restaurant ma bëgg ngay indi. sama mag jee toog maa ngi koy gërëm sant yow mi ngi ci tariqa bi grand Assane Lo monsieur Fall ak l'équipe bi suba teel ñun ñëpp maa ngi leen di nuyu ngi leen di sant ngi leen di bëgg data bi waaye yéen nga ci bis bii mu xam naa ne sax di ci ñaan ndax borom wóyul benn góor daa war a yàq te xol bu yaatu na. Mm-hmm. kon nag gars yi lekk bàyyi nii saraka teg ko. macha allah ndeysaan macha allah. Ah, jërëjëf lépp rafet na ndax lettre bi de foog naa moo gën convocation. <laughs> cey Mbàkke. yàlla naa dégg de. ma ñu convocation. maa rëdd lettre lan bi indi. lettre boo xamante ne bu a kontaan. wallaay ndeysaan. kon jërëjëf Sidi. xoli sedd non per argent de poche bi. argent <laughs> de poche. per ma

da ngeen di wax ñu tudd Ndiogou tudd Ousmane mu ñu bokk ci man mm-hmm. Ndiogou dafa xam li mu yor nit ki boo xamee ki li nga yor mm-hmm. ak ki nga ni mu mel noonu mm-hmm. Ousmane noonu la mel keneen ak keneen ku lim ci man ni nga ko waxee comme ni nga bés mi sama bés mi te xam ni ku la xool xam ne li nga doon dégg

am na fu mm-hmm. man sax loolu du koy waxal parce que xam naa. Mm-hmm. alors lii. alors bu ñu ñëwul xam naa ne yow sax keroog mm-hmm. mais bu ñu ñëwul handicap la ci yow. tout ñoom tamit dañ jël seen lii pour base. tout à ñu xam ni dafa am heure mu war a tas. il faut ñu teel génn. tout à fait teel a génn teel a ram. au plus tard vingt ci sa. tout à fait nga toj ko ñu bii. loolu la. na ñu avancé. Hmm. man loolu laa mooy wax nañ ñu Sénégalais yi teel a jóg ñu jàppale Sénégalais yi. parce que buñ si ni boo ko boo ko boo ko jàppalee Sénégal moo jàppale. il parle pour le Sénégal. alhamdulilah il parle pas pour le pôle subalterne. ñii de Sénégal. il parle pour le Sénégal. alors ça se passe à l'extérieur. la communication doit se passer à l'extérieur. aller tôt faire du tapage parce qu'il a besoin de ça. il doit être tranquille dans sa tête. warul am benn charge warul am benn problème si kii kii wu noo wala loolu épargne la ko. waaw moom de se allah jërëjëf nekk allah incha allah koo xam naa ko maa ngi lay ñaanal ci barke

muy lu rafet. kak ni nu tàmbale woon. kak yu bëri tëjaate sama wax bi jëkk dama ni. sama wax mhm. bi nga doyro nga ñëw nga càngay ba dëgg la la ma xorma daag liyaasa nga dund macha allah dañu nit bu juddoo ba dee jariñul kenn kenn jariñoo ko mënoon naa bañ a judd absolument kon yow symbole nga tiital nga ah nga nekk nit boo xamante ni wax dëgg yàlla fi nga jël teg sa bët gëm moo tax ngay doxal. kon lii nga ñaanal suñu frère. waaye fii ku fi toog na sa xol sedd. na. xanaa nga nga xolu xolu xeer. kon allah kon ni ñu tàmbalee woon ba ñaan. noonu lañ koy tëjaatee ñu nag ma mm-hmm. eh, naa ci trop allah. du neex ñi ma àndal. ndeysaan. wala du ma neex man. wala ma ñibbi am gàcce loolu wala ma yëg. ndeysaan mais xaaruma ko fi te fekk ko ko fi. ndeysaan. tey nag merci tuuti na waaye ku jëf du ko dégg. dëgg la merci beaucoup. jaajëf maa ngi lay gërëm ci accueil bi. maa ngi lay gërëm ci ni nga ñu dalal. parce que man ñii wër ma nii rek laa ko. ñoom ñoo may guddi ñoom ñoo may bëccëgal ñoom ñooy jiitu ñoo may jox xam naa ne ñi fi toog ñu def lu ma leen dara maa fi gën a nekk xale bu ma jublu ci moom mais xam naa ne ñoom kenn ku nekk boo ubbee xolam bu kontaan ndeysaan lii nga def nii sagal ma ci seen kanam yàlla na yàlla sagal wallaahi maa ngi ñaan yàlla lépp loo xam ne bëgg yàlla na ma ko suñu borom defal muy disque d'or yeeg disque disque disque platine yeeg mm. disque diamant yeeg lépp loo xam ne béykat am na bi jaay si lu jooju. wallaay ndeysaan. amiin yaa rabil alamin allahumma amiin yëkkati ma da koy la te man bi nga am ndeysaan jullit yàlla gën egg ci mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. ah, surprise de boy. <laughs> surprise di nga <laughs> <laughs> Sidi Sidi tagaatal tagaatal weer yi tagaatal weer yi <laughs> tagaatal weer yi. takos la <laughs> takos waani commandé naa dix takos waani boloñee boloñee bàyyi ay ay ay kii sotee sotee raam daal waaw. loxol Baye Ndiaye. loxol Baye Ndiaye. dara ay yooyu la non dinaa dinaa dinaa ñëw ca place est ce que. macha allah jël benn jour yoo xam ne buñ ko togg maa ko commandé. waaw loolu loolu loolu problème wallaay ndeysaan bul jooy bul jooy day jooy ndeysaan wallaay ndeysaan ndeysaan allahumma amin amin yaa rabbi alamin allahumma amin dëgg la wallaay ndeysaan allahumma amin amiin yaa rabbi yàlla amiin yaa rabbi yàlla incha allahu rabbi dëgg la ndeysaan wallaay ndeysaan salaay salaam dëgg la incha allahu rabbi